boo mën a cray nga génn baro dey kii ki ko way Bob may tubaab waaye gone yi dinañ ni légende la légende waaw waaw légende Bob Marley waaw légende moom ci moom sax moom moom légende la alaaji waay bi mën nga ma see defal tuuti dégg naa daal Bob Marley daan na jékki-jékki naan ndeysaan mu mu naan eh eh, eh ah, ah waaw <laughs> ah eh dafa xew de. alaaji ba nga doon neex nga ma doon way wi. waaw ba ma ba ma daan daan jongooru. jongooru waaw. ah boobu daan saf nag. mongol la woon waaw cam. yu toll Baay Faal ma seq ko. Ah. cam di pikiiru. naan nan. ah naan nan ci way wi. ndeysaan naan eh ndeysaan. woy sama ndeyoo yi. attention woy way wi ku nekk ak làkk ba nga ko mën a làkkee. ànd woy sama ndeyoo yi woy aboo mais alaaji. Uh-huh. dégg naa way bii daa am lu mu wax. waaw jigéen ñi. waaw xam nga dafa am ay jigéen. waaw. ñu doon liggéey ne dañoo bëgg pause dem nampal suñu doom yi. dañoo bëgg daal ñu leen di may pause ngir ñu nampal. waaw waaw waaw. borom usine ba bañ. ka moom ba. waaw moo soxor. bàyyi leen ba ñu toog di di di di dékki. waaw xaw ma njogoon añ. waaw mu taal néeg ba seen kaw. néeg ba ñu toog di noppali. waaw def nañ loolu jigéen. ndeer. jigéen talaatay ndeer talaatay ndeer de bañ ku ko suufee la toxoon mu ñu dugg ca néeg ba taal seen bopp jigéen yàgg naa am gëldëm de dëgg la mais alaaji sax xanaa ji soo réew mi léegi waaw ministère wut nañ ci dalaa femme waaw dëgg la armée bi femme yaa ngi ci dëgg la police bi femme yaa ngi ci planification ñu ni femme femme yi sax nee na ñu tuñ fi di jur ni njabooti kanaara di pacci pacci ah nu ñu def ah léegi dañuy jur benn jër ñaar mu seera njaboot gi dem liggéey ni góor ñi. parité. yow gisoon góor ñi 4-4 yi ñuy dawal femme yaa ngi koy dawal. poste de responsabilité yi hommes yi di am femme yaa ngi koy am. kon parité daa taxaw. Ah, am na ci ñoo xam ne xanaa xam bu ñu duggee seen biir kër sax du ñu def. lu tax ah. femme yaa yor kàddu ga. loolu dëgg la. ah ndax euh, derrière chaque grand a nga ko wax. dëgg la et c'est la femme. qui sait si bien mettre le voile de la discrétion sur nos erreurs. loolu dégg nga. n'est-ce pas elle qui nous a mis au monde. Eh, donc dañ ko war a respecter. <laughs> li nga wax yëpp dëgg la. Mm. jigéen la ñu jóg. na ngeen def. waaw Ndiaye kontaan naa de fii. Mm. waaw baax na waaw. tey de fii laa leen génn. waaw. wuyu ma nag la place de l'homme a ngi. waxal ak moom. Mm. nañ samp fii nag. non ñameetu ñoo toxu. fii baax na. waaw ah, fii la. ngonal kaas. ñun moom. Ah. xorondom ñoo ko dàqoon a toxu. ah waaw. ngonnal moom. dama doon seet rek ci ñax lay nekk. roñ la ñu dem roñ la ñu ñëw. ah naa ko. Ah. waaw gis nga kon. waaw un plus un égal. égal deux kon la. kontaan naa. waaw. gan gi maa réeru leen. ki ma mi ngi ci buntu bi. ah waaw dama ko dama leen koy présenté ba pare. mais nag li rëy li mu def. Ah. balaa mu présenté gan gi moom Ndiaye mii. Ah. xam nga moom mooy marketing. waaw di invité. waaw la ko wax mais marketing bi mu indil ngonnal dijj na. fu mu ñëw. la ilaha illa orange orange Sonatel la indi orange money orange money waaw waaw dina ci ñëw ñëw bu ma xamee ma toog laa leen gën a wax ci orange money njaayee leen jëli traversé ci très bien waaye gan gi ma mhm. moom laa tuddee Balla Gaye ah xam lu tax ma tuddee ah. ndax at yi dafa tuuti fit wi rëy mooy Balla Gaye mooy mooy kan ku am fit waaw xale bu ndaw bu nga xam ne avancement réew ko ñor waaw jaral na koo dee. xale la ah xale la xale la waaw. ah fii nu fi xale di ñëwee. xale la déggoo ma ne la xale la ci at. gis nga ban xale la ci at. waaw ah, waaw waaw. mais mag la ci jëm. waaw ak ci xalaat. ah waaw baax na. kooku mooy kan. waaw waaw. ana sama chéri sow pulo jéeri tërërëri réeri. Eh, kii la ana suma xamule. booy bi la kii mooy rapport boobu naan ana sama chéri ah. fu fu fu mala. mon ami mon frère. mbokk yi ni ma ko yàkkamti woon a gis ba laaj ko loolu tur ah, woowu. kocc laa ko tudd dama mi saw pullo tapatina céeri tërëri du céeri nag ah. céeri la céeri céeri céeri jaayëf waay fii nga génn waaw dof feebar dof feebar fu feebar malade maar la fu malade waaw très bien xam xamee naa ko léegi ah. Eh, ah, kontaan a mon frère tey indil nga ñu ndaanaan waaye toujours ma andi ndaanaan alaaji xam nga kii lu ma ko tudd man may ndaanaan kocc kocc maanaam kocc bar maa dekki de maa la ko wax <laughs> sama waa ji ma xam ne bi kenn mës a gis bopp bi ah bi fu na nga def waaye bul jaay kersa gu rëy na ah. gis nga ne sant fit bi rëy da ngaa xam fit wax naa ko sama biir wax booy bi ah. waaye alaaji kii mën na laa lekk de. déedéet ba jàmbur ba yow xanaa xamoo booy rappeur yi booy. ah sama xarit. yama leen say science ci noom de. ah. waaw. moo gën a Iniesta waaw. man bala maa commencé. waaw bu ko wax loolu. am na tur waaw moom malal. feebar.

ñëw afaaɓe afaaɓe wona ko firtata ɗum jamma janggi kodda ñaari yin dogu fuyni eyyo minema tan keddino toon uh-huh. uh, sorina uh, moy uh, bideewi gennna moy waaw sori na daal na daal mooy lépp sori na waaye cosaan bu yàgg la waaye am na lu mu wax nee na la toorodo la mhm. te bu nekkee toorodo El Hadj Umar Fuutu yu ko toorodo wanaa mhm. kon jàppal ko taara rek ñu waxtaan ak moom <laughs> mooy sama taara kon Baro ñëw taara ba jëlee ko aéroport moom mi fu ñu jëm foo jëm foo doon Amérique la jóge ah États-Unis ma woo ko téléphone mu ne maa ngi nii ne cëpp Sénégal ma ne ko ngodala la soxla ma di nga naan ataaya waaw très bien xaaral ma tàngalal la ataaya ma woo ko ne ko nga ne la soxla mu ne maa ngi doog a jóge Amérique. waaw ma ne ko aéroport laa lay jëlee. waaw nga ñëw ñu dem ci kër ga toog waxtaan. Samb la Baro Alaaji Góora Cheikh Ndiaye. kon àggagoo kër ga. àggagul kër ga àggagul moom maa ngi nii di door a yegg. maa dalal ngeen jëf. waaye li may tàmbale rek na may faral di ko defee mooy. kan mooy Malal taala euh, maa ngi tudd Malal Talla. waaw. Euh, dëkk Géejawaay. ñu gën ma xamee ci turu Fou Malade. waaw ma bokk ci groupe de rap bu ñuy woowee Bataillon Blindé. Bataillon Blindé. waaw nekk fa ak sama benn rakk bu tudd Fakman. bu tudd Fakman. Ah, man nekk fa ak Ñagas. waaw Ñagas mhm. nekk fa ak DJ nekk fa ak Raoul ak Modou Mama ak kajaana mhm. nekk fa ak David Kete. nekk fa ak ñoom di liggéey. Mhm. Euh, bokk aussi. mu xoolee waa coton su a ñëw. waaw baax damaa commandé woon lekk foofu. bokk aussi mouvement Y'en a marre. Mhm. nekk fa directeur artistique bi. Mhm. nekk président géejawaay hip hop. muy benn association. bu ëmb. muy kuréel bi nga xamante ne moo ëmb rappeur. ak euh, ñiy yëngu ci wàllu hip hop. te nekk Guédiawaye. Ah, kon bokk bu ma juumul. kii galon yi mu takk bari na alaaji. trop ay magam diis na. waaw léegi ma ma ma yaakaar ne. waaw. avant ngay rab defe naa da nga doon jàng. waaw waaw lu tax ma jékki-jékki gis déggatuñ la si jàng bi ma gën laa gis nga marqué wu ci rab bi euh, Malal. waaw parce que jàng naa ba toll ci. am nga niveau ban niveau nga àgg si jàng. toll naa ci deuxième année euh, anglais université Cheikh Anta Diop. Euh, yu yu yu. bul dugg foofu. bu dugub mag day dama doon xuus de moytul booy bii ah nekkoo fi woon angala laa doon dem ak bu ñëw foofu da lay gaañ ah. da lay gàcceel mu bëgg koo nakk angala angala kii ni la def naa deux dem naa ba deuxième année université Cheikh Anta Diop nga naan ko yu xaw ma angala seraaloon tës tës seraaloon bi la bu seraale woon yow ko bëggoon la angala bu gambi bi mënoo koo làkk ah. bu seraale nga bàyyi ma làkk teg mu angala ko waaw léegi donc euh, jàng waaw euh, mais musique nekk li nga xamante ne. Mhm. dama ko yàgg bëgg parce que dafa am suma benn mag. Mhm. bu tudd Badou. Badou. Euh, génn àdduna euh, ci at yële ñu génn. ci mu ngi tolloog juste ñaari at. Mhm. waaw Amadou Talla nekkoon aussi journaliste liggéey 7FM mais nekkoon aussi musicien. waaw. Euh, bokk na ci ñi nga xamante ne influencé nañu pour ñu. def musique donc mm. bi may def musique léeg-léeg dama doon sàcc ay maquette mhm. di dem ci école yi di ko woy ah. donc euh, après en 94 ñu créé groupe de rap mhm. tuddee ko African Black Roots mu nekk bataillon blindé en 98 ñu njëkk a génne suñu album en 2003 tuddee ko dëggantaan mhm. ma def featuring ak Viviane mu tudd Taximan en 2000 en 2005 ma génne benn album ak Bouba Ndour mu tujur rajo kankang ci laay woy ak ñagas gént ci laay woy cuqunaam cukul ak pakul ah, ci laay woy eh, est-ce parce que loolu xamoon ay bànneex la yi nga xamante ne doomu aadama waaw do ka ba nga ne dugg ci bi ah, <laughs> si meeku kii kii bu gudd <laughs> léegi après 2000 2008 ma génne benn album tudd On va tout dire. Ah, mu nekk album solo en France benn label bu tudd Lalu Musique. Mhm. waaw après ñëwaat au Sénégal. Mhm. nekk ci euh, génne en 2012 ak Bataillon Blindé mhm. benn album bu tudd. Euh, benn album bu tudd résistant ci la ci laay woyandoog ñagas mm-hmm. Sénégal a ngi mm-hmm. euh, ñu dem ba ci ba sori aussi ma bokk ak ay ñoom Tiken Jah bokk na ak ñoom Tiken Jah Fakoli bokk ak ay ñoom Mokobe mm-hmm. yëgoon kii waaw bokk ak gars yi dama koy suivre international gis naa ay kilibam yoo xam ne bitim réew la mu def kook waykat yu mag ya man gis donc hmm. euh, ci liggéey boobu mais ñu ngi ñu gën a ràññee ci diggante at yooyu lépp lu ñuy liggéey rek ñu tàmbale depuis 2005 hmm. ñuy ñu ràññee ñu aussi ci liggéey bi nga xamante ne mooy naka lañuy ñuy fexe ba dugal hip hop ci biir kaso yi biir kaso yi waaw di fa woy mais aussi di fa yóbbu lu mel nii les rappeurs yi di jëfandikoo di graffiti di fecc. di bind jàngal leen. bind jàngal leen wooy waaw loolu lu tax ngeen bëggoon lu tax lu yi lu tax ngeen taamu ci kaso yi. waaw parce que ñoom amuñu ñoom ñun ñooy seeni i tànk. dëgg la ñun ñooy seen làmmiñ. ak seen gët. waaw ñun ñooy seen i bët. am na ñu ñu fa téye parce que damay rappelé wu en 2005. biñ fay njëkk amal ñun concert rek moo ñu yëkkati woon. organiser concert ci biir mhm. kaso bi. bi ñuy njëkk a organiser concert en 2005 ci kaso Rebeuss. waaw euh, prisonniers yi dee ñu ne ñu. Hmm. concert baax na trop. parce que dina ñu bégal. waaw wante nag tey ñu fi téye yàgg na. Hmm. am na ñu fi nekk dix ans. Hmm. kenn du leen atte léegi nag ci la ñu entamé ci année yi ci topp. di xeex li nga xamante ne mooy téye bu yàgg. loolu 2005 lañ la ko wax. waaw waaw 2005 <laughs> lañ ma ko wax donc. événement yi ci topp ñu fa def yëpp. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. ñu ñu tàmbalee def ay xeex yi nga xamante ne mooy naka la ñuy dugalee ci biir kaso yi. waaw ay formation mm-hmm. pour ñi nga xamante ne ñu ngi leen fay téye. mais naka la ñuy. fexe aussi xeex les longues détentions préventives maanaam téye bu yàgg bi. waaw. Mhm. waaw léegi man man man damay dellu si tuuti ci gannaaw ak alaaji mhm. xam nga tur dafa mën a wuy boroom mhm. tur lu mën a wuy boroom la parce que alaaji njaay mii day bind waaw ah yow da ngay bind waaw moom day réaliser ak a defi yëf ngeen booloo tuddee ma saa neex sàmb muy neex moom mii mu xool boppam ci li muy liggéey ni fuu malade fuu rek dafa doy boo feebaree tek ca foo jëm lu tax fuu malade ci boppam man loolu laa xamul Bassirou Faye lu tax nga taamul loolu xaaral balaa ngaa ñëw ñu teral la waaw waaw gan boo xamee da nga koy man loolu ma la yàkkamti woon gis ma laaj la ko fuu bi ak te moom doful dopporawul jinna jàpp jinna jàpp tegewul sax fu ñuy dofe Bassirou Faye borom koton su club ku dem ca tikken jaafaa ko li di def ak moom it ah. dof nga doful kii. waa coton su club la. non Ndiaye nag sës nga. Ndiaye yaa fi indi borom i sàppo. waaw waa coton su club cëm xam nga ne jën wii de waax wa mu dee xamu leen ko. kooku mooy mooy poisson braisé. mais waax wa mu dee xamu leen ko. kii poulet braisé. ah. Basirou kontaan naa fay. nuyu waa eh, Basirou di eh, nga Basirou. yow. la woo. ah. déet waay. te dinaa ko wax sa directeur. lu mu def. déet ma xoolee man nga jox ma jën jox ñee yàpp. <laughs> man loolu laa la bëgg a wax rek lu tax nga xool ma man ma toog nga jox ma sa poisson jox ñee seen ganaar ku la ko sant. Basirou nee ko xoolal ñun ak. ku la ko sant rek laa wax. kii dafa am am combat. waaw kon foog ma préparer. waaw dama merci beaucoup. kontaan nañ kontaan nañ. nuyu ñu waa Coton. nuyu ñu waa Coton ko dégg. waaw plat baax na jërëjëf kontaan nañu. waaw léegi Fou Malade ji lan la. lan la. waaw parce que xam nga. waaw. d'abord dañu tudd bataillon blindé bataillon mooy ci niñ koy bindee ci français boo koy firi waaw ko ni ko tubaab bi di bindee normal dañ ko bind ah, dañu bind BAT waaw apostrophe boole ci ayon ayon mooy boroom yére yu ñàkk solo yu ñàkk waaw léegi te ñooñu hmm. ci la ki am feebaru xel bokk dëgg la léegi boo amee groupe bu mel noonu hmm. dafa mel ni nga ne euh, ngen tuddee seen groupe. Uh-huh. suulkatu néew yi. dafay am saa suul ay néew. dafay am dafa mel ni boo leen tuddoon suulkatu néew. ah yaa ngi dégg. dafay am ku tudd borom peel bi. waaw am ku tudd gaskat bi am ku tudd maanaam sangkat bi. waaw am ku tudd borom kiki kaarankat bi. waaw. léegi nag. waaw moo waral man ma tudd ci bataillon blindé Fou Malade. waaw parce que dof bi ci ñoom la bokk. waaw am ku ci tudd Fakman. waaw amoon ku ci tudd Kourouma mu ngi France amoon ku ci tudd Didier Alla moom tamit mu ngi France euh, am ku ci tudd Ñagas. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Hmm. mu am ñoom cité naa ñeneen ñi sànq. Hmm. mais artistes yi ñooñ la ak DJ la. kon daal Fou Malade bi daal fa la. waaw léegi mais li waral. ñu def répétition ne Founé malaat parce que ñu bëri fii Sénégal jàppewuñ ni euh, dof boo amee feebaru xel dafa nekk feebar comme tuberculose. dañ comme sida dañ koy faj. bëri na ñi nga xamante ne bu seen mbokk feebaree. dañ koy jalax ci biti. parce que dañuy mel ni dañu am gàcce. Mm. léeg-léeg nga am rakk wala mag wala yaay wala tante walla nijaay. bu am feebaru xel mais ngay rus ni moom. sama mbokk la sama mbokk gis naa ko mm, loolu wala nga dugg ca kër ga ñu koy tëj. waaw njagamba yi dafa woyoon. ne daw ku wërë di boo ko dawee ba mu xam. mën naa yokk lu mm. ko métti daw maa yéendu. waaw loolu waaw loolu moo bokk na ci li inspiré woy boobu. Mm-hmm. donc pour fàttali nii que. c'est pour dire juste que la folie est une maladie. Mhm. effectivement maanaam euh, maanaam boo dof bi. feebar la dafa feebar. isaan xanaa xamoo moom mi hmm. ci ñi koy suivre dëgg di ko seetaan. ak di non waxuma man sax man bu ma ci seppee sama bopp. Hmm. am na ñoo xam ne dañuy ceytu ay mbiram. Hmm. dañ ni du rappeur philosophe la Hmm. Cheikh Anta Diop a ñëwaat. moom. Ah, eh, moom ku bëgg loolu la. bu ñu ree waay eh, booy. kenn waxul ni moom nga de. <laughs> bëgg a dugal de. carbone 14 année bu. kon nangu de bul nangu nekk Cheikh Anta Diop. waa léegi Ndiaye moom 2005. kon nangu. mu demoon seeti waa prison ba. mu seeti waa prison en 2005 en 2005. waaw. bokk ak ñoom seeni i naqar. waaw ñun ñëpp. waaw. ak ñoom seeni i bànneex. Mm-hmm. am xelum dugal fa ay mbir. Mm-hmm. xanaa loolu loolu saf ko mu dem dugg fa ak ñoom dafa dugg <laughs> kii ah, mus na ca waaw ah, mos naa ca waaw ah, loolu dugal kii dama koy suivre. sama artiste la. Baye Cheikh loolu dugal foofu. waaw tooñ. tooñ yaa tooñ. waaw maa tooñ waaw. waaw eh, eh, eh, <laughs> dama tooñ dama xeex euh, sama benn mbokku rappeur fekk ko këram xeex ak moom. bi ma fekk ba waaw bi ma xeexee ak moom. yaa ngi ku jàngul nag yow. loolu ban doole am bay xeex. waaw non dañu xam nga mer. mere nit moo tax maîtrise dafa am solo. dëgg nga ni. boo meree mun na la dugal ci ay gilaawaal boo meree te xalaatoo boo meree jiital sa xol. Mm-hmm. jiitaloo sa xel. Mm-hmm. dangay dugg ci ay musiba. yi nga xamante ne kilifa léeg-léeg bu yaanaa maar te bokk groupe kër gi danaan malal. Euh, histoire boobu rek la bañ ku ko fàttali parce que da ngay def ci moom gàcce. Mm. parce que euh, histoire bi am na. ñu dem. nga dem kër waa ji. ñu dem kër waa ji. sa mbokk rappeur la. waaw euh, Gaston la. ok Gaston waaw ñu jàppante. Mm-hmm. après mujj gi histoire waa dig jot ci ñu dem wuyu ji kaso bi ñu demee wuyu ji kaso it. boobu régime kan la woon. Ablaye Wade boobu nag mu ngi maa ngi fàttaliku biñ fay dem c'était le 27 janvier boobu ñu ngi valider candidature Abdoulaye Wade. ok boobu mer dëkk bi tàng. waaw parce que yow booy yow. fa nga xeexee baaxul. yow fa nga xeexee da ngaa topp Abdoulaye Wade sonal ko wét. teg koy me yoo xam ni dar ko rek booy bi moo dar paaba dar ko dar ko goo xam yow xamoon nga ni paa boobu du dara. xamoon nga ni gerte caafu jàmbur boo ko boxamee sax. gerte caafu jàmbur ba nga naan juróomi dërëm ma ngi nii yaa nga yaa nga foofa. yaa nga nungu si rafetlu ci loolu. waaw mooy bi ñu demee avocat yi ak justice bi aussi dañ ci def liggéey bu am solo. Ah. parce que. boobu politique yi ñu ngi ci bëgg a dugal seen loxo. pour ñu sànq ma. waaw. mais justice yi aussi xam nañ liggéey bi may def ci biir prison xam leneen ak leneen. waaw. ñu taxaw parce que chef d' accusation yi bëri woon na. waaw. association de malfaiteurs vol en réunion destruction de biens appartenant à autrui mhm. yooyu yëpp mu nekk ay chef d'accusation yi nga xamante ne munoon na ma jural correctionnel waaw mhm. mooy tey mu ngi mel ni sama mag Mbaya mhm. Pape Mbaye mu ngi fa ñu ngi ko téye at yu yàgg kenn atteegu ko sama la euh, sama xarit la ah, ñoo bokku géejawaay am ñeneen yeneen xale yu fa nekk def ay dix ans quinze ans euh, sept ans huit ans. wala nañ ko ci télé bi yi ñëpp dañ cee ku mel ni maawo ba maag moom ñoo jëloo kër ñu ngi ko téye depuis deux 2007. ba léegi donc sept ans de détention de détention préventive mm-hmm. donc yooyu la oh. donc aussi amaana dem boobu aussi ngëneel la parce que jox na ma occasion pour ma gis lan moo xew. combien de def de euh, temps nga def. naa fa 15 jours. ñu jugé ñu tëj ñu. Euh, mais ñi VIP lañ leen waaw non non non. amul VIP man maa ngi woon. amul VIP. amul woon yaa maa ngi woon chambre 14. chambre 14 booy xayma toll nañ ci lu tolloog ay 85 personnes. ci benn néeg. waaw am na loolu sax chambre bu tane la. bu tane am na yeneen chambre gisuma ko nag. parce que mënuma ko gis romb naa rek yeneen chambre ci cours yi am na yeneen chambre yu am ay plus de cent cinquante personnes. ñu dajale leen ci benn néeg. parce que kasoog rëbës mu ngi war a contenir six cent personnes mais mu ngi contenir fi ñu toll ni deux mille cinq cent personnes. jamono jii nii boo demee waaw boo demee jamono jii nii kaso ba euh, nit ñi euh, dañuy taxaw. waaw bu période tàngaay ñëwee nit ñi dañuy weñ seen yëre yi. waaw ndax ñàq. di am ay taab. Oh. di am lu ne. waaw pour wax la ni. yaa ngi ma koy wax ni ma mel na ku. waaw yàlla nañu fi yàlla nañu yàlla yàlla nañu yàlla musal ci kaso. te génne ña fa ne waaw te génne ña fa ne. te aussi justice bi war a def benn politique de réhabilitation benn politique. nga xamante ne bu am solo la pour ñu dimbali. Mhm. pour pour sax du sax dimbali parce que détenu bi dafa am droit. Mhm. dafa am àq ak yelleef. dëgg la ñun bu ñuy liggéey ci loolu. Mhm. àq ak yelleefam ñun liggéeyuñu ci kaso bi. waaw di wax ni nañ leen yóbbul ceeb. waaw nañ leen yóbbul dugub. waaw wala nañ leen yóbbul mango. Mhm. wala nañ leen yóbbul nangam ak nangam. waaw li ñuy. parce que pour ñun c'est pas le plus important détenu bi li mu gën a soxla mooy ñu taxaw ci ay mbiram ñu mhm. ko mu xam fu mu féete xam fu mu féete mais yow loolu yaa ngi ciy xeex ba léegi loolu depuis 2005 hmm? ñu ngi ci xeex. Mhm. loolu mooy suñu xeexu bés bu ne. bien tolloon nañ fi en 2010 sax ñu tere ñu. 2010 tolloon nañ fi ñu tere ñu kaso yi. tere woon nañ ñu organiser ci kaso yi parce que amoon na benn jamono euh, ci nguuru Ablaye Wade. waaw 2010 ba 2012 tere woon nañ ñu. Mhm. organiser ay concert ci biir kaso yi parce que ndax rek bëgguñu taqal dara. Mhm. ndax peut-être. jege yi ñu jege détenu yi. ñu ñuy xamal lan moo xew ñu koy wax ci kaw. parce que bu fekkee rek dem nañu nekk ay leader d'opinion te mënatu ñu wax soxlay askan wi yaakaar naa ni. waaw kon suñu liggéey jaratu ñu koy def suñu dëgg yàlla ñun kat dañ fee nekk ngir taxawu askan wi. li naqari askan wi daal ñun dañ fee war a nekk ngir taxawu leen. waaw loolu nag nga ciy xeex moom. waa léegi daal giif nga yow parce que nag. man jàngat naa ci moom ni ah. yow sànq da ngaa juum xanaa xamoo ci biir wax yow alaaji ah. ci nga alaaji mii ni mu dofe ah, xool doomi jaamul ji naan ko ban doole nga bay xeex yow doole yi xeex nga defe lu xeex doole xeex doole may xeex tooñ ko boo ko tooñee xam lu tax dig ci bëgg a génn dan <laughs> dina xeex ba suba kii te doo ko jàpp doo ko mënal dara ah lay xeex ak xel fi tey xeex fi tey xeex ak xel mm-hmm. kii mën naa xeex ñetti fan du arrêté. <laughs> alaaj ba Cheikh Anta Diop. kii dama koo xam de booy. xanaa xanaa kon loolu moo ju ju. waaw turu yaana maar bi. fan la jógee. ñoom ñoo ko créé moo leen révolté ba ngeen taxawal. yaana maar yaana maar da ku mer koy wax. waaw zane maar. yaana maar bi muy sosu. waaw alaaj doo ñam ci kii bi yàpp. man nag dama. non lii direct man bëgguma lekk télé. Ah. déedéet nag Fatick yaa ngi gis télé du jàq de waaw non du kër la ñu nekk de maa la ko wax du jàq non non dama waaw da ngeen koy wone yéen da ngeen sopp non non non dégg nga da ngeen sopp nag ci napp da nga mu ñuy napp naan ñu da ngeen a sopp du ma lekk télé ah, ah da ko bañ xay di nga naan télé waaw man dinaa naan ataaya télé waaw waaye doo lekk yàpp télé waaw doxalal hmm, nag day fekk ni balaa askan wi di ci jot moom bay wéy na mbuus bu ñu amoon mayonnaise coton sofa jàng bu ñu amoon mayonnaise ak yooyu balo jën a ngi nii de ba ngay xool ca yàpp wala jën jën a ngi nii de ah ah en tout cas waaw xoolal xoolal ma xam naa en tout cas. waaw Y'en a marre. waaw Y'en a marre. bon Y'en a marre man sosoowul ci man. waaw dafa sosu ci diggante ku tudd Alioune Sané. waaw. Sofia. Euh, Sofia. Sofia waaw. Mhm. benn jigéen buy ànd ak waa kër gi caat kilifa. waaw. Euh, Mouhamed Seck mhm. biñ ko sosee ci guddi gi caat woo ma ne ma yi ñu doon waxtaane jamono ji yëpp ci wàllu dëkk bi mhm. ñun am na lu ñu gis boobu yéen a ngi ko doon waxtaanee feneen. waaw léeg-léeg dañuy daje. di ah, waxtaan parce que caat aussi nit la bi nga xamante ne. ku ma naaw la parce que dañuy daje lu bëri di waxtaan ci wàllu dëkk bi. Mhm. jamono yooyu léeg waaw léeg-léeg waaw léeg-léeg mu ñëw sama kër. léeg-léeg ma dem këram wala fu ñu daje rek occasionnellement dañuy discuter ci dëkk bi. Mhm. bi naa maar amee mu ne ma ah am nañu conférence de créer nañu nàngam. waaw euh, ñu ngi ko bëgg a lancer. le 18 janvier place du souvenir ñëwal teew nga déglu. waaw bi ma ñëwee teew. Mhm. déglu ba yaa ngi si régime Wade. waaw. 2011 mhm. bi ma ñëwee teew déglu mu dëppook li may dox. Mhm. mu dëppook li ma gëm. ma soob ci sama bopp. soob ci sama bopp bi ma ci ñëwee tamit. jël ci samay responsabilité ñu def ma responsable artistique bi. maanaam may xalaat. lépp li nga xamante ne. bu ko mouvement bi xalaatee naka la ko artistes yi war a woye wala naka naka la ko artistes yi war a théâtre mhm. pour askan askan bi mën ci jot jot bu yomb mhm. parce que léeg-léeg ministre wax déclaration de politique générale waaw wax ko ba pare. waaw askan wi du xam dara ci li mu wax. li mu wax nit waay ko nit waay ko. mu leer nañ askan wi wala ñu tayaatul ko mu leer ñu njëkk d'accord avec donc ñu njëkk a def. hymne benn hymne bu woy wayu yaana maar. waaw boo leen déggee ci woy bi yéen a ngi. woy ndax mën nga ñu cee. tuuti. waaw woy bi yéen a ngi dégg. yaana maar ah. yaana maar boobu. waaw xam ngeen ni làmb bëri woon na trop. ñuy fay ay millions mbër yi. waaw mais bu Balla Gaye daane ñëpp génn ci dëkk bi ne. Ah. wayando Balla Gaye ñu ne mélodie bii nii. Ah, baax na parce que ça rendre. la quoi waaw ça va rendre populaire la chanson. donc ñu utilise mélodie boobu. Mhm. liggéey ci taamu ci kayit yi. waaw taamu ci Jili Bagdad bu cinquième underground taamu ci xumaan. pourquoi parce que ay. nit lañu yu xarañ ci wàllu bind xumaan aussi xarañ ñu ràññee ko trop ci wàllu wax ci politique. waaw bi ñu bindee woy bi. bi ñu bi. mu nekk im na a marre. donc mu donc mu tënk philosophie. waaw mouvement bi. waaw ci li ko tax a jóg. ci ni muy doxe bi ñu paree loolu. Euh, def les mille plaintes contre le gouvernement tàmbale ko Rufisque. ñaata plainte. les mille plaintes contre le gouvernement. donc. Euh, xanaa ñoom mënuñoo woon rëcc ca tribunal boobu ñu ngi ko lancé au mois de février. waaw. dem ci ba ñu jàpp ñu Rufisque ñu joge fa def euh, campagne das fanaanal commencé inscrire ndaw ñi ci liste électorale yi. balaa loolu aussi ñu defoon. boobu yëpp yéen a ngi xeex ngir daal kële dem. boobu ñu ngi xeex pour sénégalais bi xeexuñu pour mu dem. dañ doon xeex pour un changement de système. parce que système bi ñun ci lañ bokk. waaw parce que dañ doon wax non seulement. Euh, li ñu gis. waaw les mille plantes li ci nekkoon mooy dund gi cher na. waaw. école bi doxatul. waaw ñu ngi fay courant courant mu ngi coupé. guerre am na ci dëkk bi. Euh, justice bi. dafa taxawee taxawewul njaaxaanaay mhm. euh, yooyu yëpp ñu ne foog ñu jóg ci ñu ne aussi war waa ñu dajale ci mille mhm. ñu woo sénégalais yi le 19 mars te jamono jooju ñu fi nekkoon def nañu mille foot euh, bon dañu ne rek mille plante lañ ko tuddee amaana ëpp na mille amaana matu ko mais dañ ne les mille plaintes pour wax ni rek li askan wi am ci ay jafe-jafe dagguma la dagguma la est boobu yéen da ngeen dox ci li askan wi ki li li li li soof askan wi wala da ngeen di dox ci li leen soof yéen yéen ñi sos association li ko sos mooy xam nga bu la dara soofee ba ci sa biir kër waaw bu la dépense bu bari sonalee sa biir kër ngay jox sa jabar waaw ñaari junni hmm. mu ñëw ndugg dama waaw ndax booba li leen soof ba ngeen ni waaw ci laa ñëw yaa naa maar la soof askan wala wala la leen soof la yéen waaw pour tënk waaw pour tënk la soof askan wi parce que ñun waaw ñun ay baatu ñi amul baat la parce que li Saneex mën a wax waaw mu egg fu sori mhm. Ibra Ndiaye Gadiaga dëkk Koumpentoum maa koy wax te mënul egg fen mënul donc mu xëy na ñun ñii ci ñun ay woykat lañ ñii ci ñun ay journaliste lañ ñii ci ñun ay sénégalais simple lañ mm-hmm. ay maçon lañ mm-hmm. ay bureaucrate lañ mm. ay technicien lañu ay caméraman lañu ay leneen lañu et cetera et cetera mm-hmm. donc ñu ne li ñu li soof sénégalais yi li nga xamante ne moom lañ ci moo leen soof état bi am ci responsabilité ñoom tamit ñu am ci responsabilité parce que bu fekkee ñu ngi ñuy jiitee ni ñuy jiitee depuis cinquante ans mhm. il y une responsabilité de l'État mais il y une responsabilité des Sénégalais waaw ñu ne ñun ci suñu biir mm. ay population lañu mm. kese il faut mm. il faut trouver le concept il faut am il ñu toll ci peuple parce que population mooy nombre bi benn ñaar ñett ñeent un million deux millions cinq millions waaw ñu dajale ñii yab leen ci ay car rapide yóbbu leen fii ne diw dóoral kii defal lii defal nanga waaw mooy ki nga xamante ne keneen mooy xalaat à place. waaw maa ngi dégg. maa ngi dégg ñu ne nag. Mhm. loolu dafa war a dakk il faut que sénégalais bi. Mm. bokk ci processus de décision bi. maanaam foog ñu boole sénégalais bi ci lépp li nga xamante ne réew mi. parce que yow saa neex boo duggee ci boutique bi jënd fa ataaya. Mm. bàyyi nga fa TVA. TVA boobu moo jëm ci contribuable sénégalais bi mooy. Mhm. li sénégalais yi bokk moom. Mhm. Mhm. ñu war ci tabax hôpital. war ci tabax war ci tabax ay tali. war ci jënd ay ambulance pour jigéen ñi nga xamante ne ñooy matu. nekk fële ca Koumpentoum. wala nekk fële ca Gidimaxa. waaw et cetera et cetera ñu war leen a. yab ci doxul. ñu ne yooyu doxul foog mu deñ te pour mu deñ ñun sénégalais yi ñoo ci mën a taxaw ñu ne lan la ñuy tànn pour def ko. ngeen wax lan ñu ne li ñuy tànn pour def ko tànnuñu pour nekk ci benn parti politique. waaw ñu pour nekk société civile classique. waaw comme ñi fi nekk. dañu tànn nekk benn mouvement bi nga xamante ne. Hmm. du ñu ànd ak benn parti politique. Hmm. dañuy ànd ak sénégalais yi soxla yi sénégalais yi mooy nekk suñuy soxla. xanaa looloo waral bañ la joxee million ya ca pale ba nga bañ ko. dañ kaa joxoon million bari mu gedd ko. dafa am jamono. waaw président bi fi nekkoon. Hmm. Mm-hmm. bëggoon boobu euh, bëggoon ma woy. million neex na bëggoon ma woy. Hmm. bëggoon ma woy. cuqu naam cuqul boobu ngay wax. en 2007. waaw ah, xam nga di way cuqu naam ba nu cuqu la <laughs> bëggoon ma woy ci. waaw ñu ger ma. loolu ger la. parce que liñ may jox du sama sa du alalam. du sama alal alalu askan wi la. ñaata la la doon jox booba. boobu ñu ngi may proposé vingt cinq millions. kala Abdoulaye Wade. waaw jamono yooyu. waaw waaw na loolu. waaw. ma loolu munu ma ko jël aw ma sañ-sañ bi. waaw ma bañ. Ah, am ci ay xarit wala ay mbokk yu ne ma la décision est bon am ci ay mbokk ak ay xarit yu ne ma weere nga. waaw munoon nga ci defar sa àdduna. ci vingt cinq millions. waaw man leen déet lii defar sama aduna man maa koy liggéey. Mm-hmm. donc yow nga wax loolu. waaw yàlla def. waaw aussi. Mm. loolu romb. waaw. Euh, ñu nekk ci li ñu nekk bataay gerte jëloo. non non non loolu parce que. dañu bëgg won nit ñi ni que. Mm. neex na trop. mais am na li nga xamante ne ñun. Mm. dañu bëgg juste di. offrir ou en remettre en exemple. Mhm. pour nit ñi mën a xool ci ñun. Mhm. comme que rappeur bi. Mhm. moom la ñu taqal tuxkatu yàmba. waaw borom tubéy bi wàcc. bandi salte bi xeexkat bi. waaw ñu mën a gis ay rappeurs yi nga xamante ne ñooy jàngal askan wi comme ni ko rappeurs yi dajale motiver population yi le 22 juin. pour ticket présidentiel bi bañ a jàll. waaw parce que nit ñi le 23 juin la ñuy wax. mais le 22 juin moo jiitu le 23 juin parce que ci lañ jàpp caat. ci lañ jàpp yenn rappeurs yi parce que rappeurs yi. bi politique jàppoon nañ la. waaw boobu maa ngi woon boobu man le 23 juin fekkuma si mbedd mi mu ngi ma. fekk ci mu ma fekk ci mu ma fekk prix central. waaw donc ay éléments dangereux la ñu woon. mënuñu woon dox donc dañu bëggoon. rek nit ñi xool ci ñun. waaw pour nit ñi xam ni am na ay nit. yu nekk Sénégal. waaw bu dee kenn la. waaw am na ñi nga xamante ne kenn mënu leen ger. kenn mënu leen ger mooy lan. Mhm. mooy ma ne la kaay ma jox la diw kaay ma jox la nangam hmm. nga waxal ma nangam ci diw hmm. wala nga defal ma nangam diw diw ah. loolu yàq deram wala nga waaw demal wax ci nit ki lu amul demal def li naa la jox xaalis nangam nga defal ma liggéey nangam te yow xam nga ni loolu ñu lay jox baaxul ci wala nga sàcc ger nit ni ko gëmmal ah, man ci crois waaw xam nga ni looloo tax xaalis booboo tax mu xulloog Racine Talla ak Mamadou Talla Racine Talla ba du tuddante man dégg naa ko de dama koo dégg. waaw parce man ci loolu. ah déedéet ñooñu nag samay mag lañu. ah dama koo ah, dégg rek xam nga dëkk bi man defal naa man dara wóoruma. dëkk bi lu ne la ñuy wax. Racine Talla ma xaalis boobu mu jëlul. moo tax Racine ak Mamadou Racine mooy nekk ci RTS gii. Mamadou Talla ministre la. waaw ci APR. Ah. affaire la nekk waaw man man de. xam nga ñun bu ñu amee gan. kii daa dégg rek. Eh, man wóoruma. <laughs> wóoruma de. Uh-huh. moom xamoon naa mbokkam bu nekkoon ca ministre euh, ministère euh, ñi yor mbiru ceeb yeeg dawlin yeeg yooyu commerce. commerce waaw kooku sama xarit la woon. waaw dégg nag. kooku moom xamoon naa ko bu baax moom. mais ñii damaa dégg ni rek ay mbokkam lañu. ay magam lañu. waaye racine mooy booy bi dafa dafa moom daal moom dafa kii daal moom. Ah. dafa allemand dafa itinéraire. Ah. <laughs> racine mooy. waaw racine mooy suñu taaw. waaw. lu ngeen bokk. ñoo bokk ndey baay. Mamadou. sama papa ak papaam. ñoo bokk. sama papa ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay. waa ne lu ngeen laale daal dégg na waaw dañuy laale parce que samay mag lañu. damay wut laaj mag buñ ma yónnee waaw damay dem très bien buñ ma ne hmm. bàyyil nangam ci nangam hmm. ci lu dul dëgg ma bàyyi hmm. mais nag APR la bokk ñoom man yaanaamaar laa bokk bokkuñu gis-gis <laughs> dafa mel ni sama benn rakk mhm. dafa mel ni sama benn jarbaat siré lay waaw iba euh, Baye Fall sama rakk la. waaw Ibadu Rahman la. waaw donc ci kër gu mel noonu laa nekk man. am naa sam benn mag Aïssata Tall la. waaw boo laalee Ablaye Wade tey mu rey la. boo laalee Ablaye Wade tey mu rey la. saa yu ma gisee nii danaan ma yaa ngi dem tele bul wax si Ablaye Wade dara parce que dafa bëgg Ablaye Wade. ndeysaan très donc. Mhm. kër gu mel noonu ci laa màgg fa laa nekk. ok ok sa gis-gis daal mais daal ñoom. noonu kër ga demee ku nekk daal accepté na sa décision morom. sa décision morom démocratie daal am na ko. alhamdulilah rabbil alamin kay nit ñi dañuy wax rek. waaw Malal demal wax na loolu la. ginnaaw bi ba mu dem. Hmm. ngeen ñëw sànq. Eh, ñoom eh, ah, dem na jàpp nañ rek mu mel ni ñoom ñoom mais poussé ñu régime. poussé ñu rek. waaw dem. waaw ngeen samp. waaw mais dafa ne ndax gis ngeen ne jafe-jafe sénégalais yi wàññeeku na wala deñ na parce que bu njëkk Espagne lañ leen gënoon dégg que léegi jamonoy mag yi li ñu leen dégg bari man waxee te waxul Espagne rek alaaji nag Espagne fa la bàyyi ko nag amen alaaji mat man nekkal espagnol yi de mais bu ñëw ci Espagne <laughs> il faut parler du Sénégal kii Sénégal la nag mos nga arabe Espagne am dëgg nag Espagne déet mosuma fa dem ah, kon bu ko laaj waxu Espagne waaw léegi waaw ndax tolof tolof yi réew mi am waaw gis ngeen ne changé na par rapport ak combat bi ngeen doon def parce que léegi kenn déggatu leen euh, ñu ngi ñuy dégg waaw contexte yi du benn waaw dañu nekkoon ci benn contexte bi nga xamante ne diggante. en résumé nag. Ah, waaw la. Sey <laughs> Baye Cheikh Abdou Diop. yàlla li de. dañ ko war ci balaa ngaa xam nga Sénégalais yi diggante le 23 juin 2011. <laughs> loolu dinañ ci. dinaa si <laughs> juin ak. ak ba bi ñuy jëm ci élection en 2012. waaw Sénégal actualité bi yëpp politique la woon. Mmh. dëgg la donc loolu rek moo nekkoon au cœur des débats. bi Macky falo. Mmh. Euh, ba woo ñëpp. Mmh. woo mouvement Y'en a marre mouvement Y'en a marre dana jërëjëf ci woo bi ñu woo. mais nag dañu bëgg a nekk sentinelle. dañu bëgg a rester Y'en a marre. bëgguñu poste bëgguñu dara. dañu bëgg continuer di wax suñu xalaat di la ko wax. waaw donc ñu continuer di ko def. Mm-hmm. bi anniversaire yu Y'en a marre jote mm. ñu fàttali Macky dige bor la gor ca wax ja. waaw ci diggante bi. léegi gor ca jëf ja la. waaw. Mm-hmm. Ah, ñu commencé. def li nga xamante ne di dérouler ay programme li nga xamante ne. waaw xam nga sénégalais bi nag presse bi. waaw intéressé na ko trop Ibrahima Ndiaye door na xaali Gajaga. télé daf koy wane. waaw mais Ibrahima Ndiaye tabax na jàkka télé buggul di ko wane. parce que sensationnel la presse bi di intéressé wu. Mhm. mais Y'en a mu ngi def liggéey bu fasantikoo ci gox yëpp biir Sénégal teg fa li nga xamante ne moom mooy observatoire de la démocratie et de la bonne gouvernance maanaam te télé yi duñ ko wane. te duñ ko wane. lu tax fan nga ko teg ne yow lu tax bëgguñu ko wane wuñ ko est parce que bu fekkoon loolu télé bi ñu ngi koy wone di ngeen ma ci intérogé parce que fu nekk. dugal nañ fa ay bureau installé fa ay bureau est que yéen a ngi ciy woo télé yi woo nañ ci ñëpp mm-hmm. ñëpp woo nañ télé privé yeeg public yeeg mais tey xam nga tey dafa mel ni diggante nit dof ak Canabasse bi xeex bi am ay nit wax turu nit diga bi yow ñu ngay wax ne ay nit lañ. waa ay nit lañ ay <laughs> rappeurs ay rappeurs yu mag. yow yaa ngi tudd Fou Malade lijjanteegu ma ko nga naan nit. dinaa leen lijjanti ba leen ci moral foog nga indi leen ah leen lijjanti parce bi seen diggante amee bi seen diggante problème. waaw presse bi ñëpp ko wax. ay bi Fou Malade takkee jabar ñaareel. waaw lii laa ko de télé bi ñëpp ko wax. tey xam nga loolu fan laa ko dégg. tey. waaw ci revue de presse laa ko dégg. xam nga mais dafa liggéey bi Y'en a marre di def. waaw muy ci wàllu observatoire de la démocratie et de la bonne gouvernance mu tudd dox ak sa gox maanaam. dugg ci gox yi. naanal dox ma euh, boo leen yéen ñi dëkk Thiès. gis ngeen boo leen demee place de France. gis ngeen fa. ñu am fa siège. pour que. politi pour que population yi. waaw bu ñu falee seen maire. Hmm. ne ko wax ñu budget bi ñaata la. waaw xaalis bi fan ak fan la jëm. waaw suuf si ñuy séddale Thiès kan ak kan lañ ko jox ak lu waral ñu jox leen ko parce que problème mu suuf am na Sénégal le code foncier. le code minier. Mm. et cetera ba pare di pousser population yi bi ci dynamique participative. waaw kon population bi dafa war a xam dafa war a xam. voilà leer na mais man man dama am lu ma bëgg a wax foofu. parce que tey jii. Mm. manal mm. Y'en a marre. bi rek déjà. boo ko déggee rek day am fu ñu leen classé. Mm-hmm. n'est-ce pas. waaw xam nga dëgg la. parce que kenn du ko wax di ree kenn du ko wax naan yaa naa maar. waaw da nga koy wax di. yaa maar rek ngay wax. di mer. tuut bi sax ci boppam boo koy wax doo ree. voilà c'est ça. donc man dama dama bëgg rek. waaw parce que Sénégal dafa am lu ñu xamee. waaw muy lépp lu ñuy def ak lépp lu ñu mës a dugg ak lépp lu ñu gën dañ koy régler ñun pacifiquement. waaw ñun peuple bu pacifique la ñu. waaw. xamuñu xeex. waaw xamuñu saaga. waaw xamuñu guerre. waaw police sénégalais policier ngay gis sax danaa la sama fetal bi musuma koo dóor teel. Mhm. waaw kon ñun suñu lépp jàmm la. waaye liif yaa ngi dem de. waaw waaw non li ah faw mu am nag. li li yaa ngi liifee de. li faw ma am. donc man foofu yéen. Mhm. tey jii bu fekkente ne am na loo xam ne neexu leen ci réew mi. waaw je crois bien que ni pacifiquement ngeen koy réglé wala nan ngeen koy réglé yéen tey. mais Y en a marre mouvement pacifique bu mag a mag la. parce que. lu nekk nit ñi jéem nañ ko pour du bi le 23 juin mhm. bi nit ñi xeexee waaw ba Ablaye Wade retiré ticket présidentiel bi waaw parti opposition yi dañu bëggoon jiital Y'en a marre pour génn ji Ablaye Wade pale ñu ne leen mukk Ablaye Wade dañ ko fal pour ba dañ ko fal ba 2012. waaw pale du noonu nag. de yaa donc lu tax pourquoi. il ne faut ñu leen jiital yéen lu tax ngeen ah. lu tax ngeen bëgg jëmale dëkk bi ci situation boobu. leneen li ci topp mooy. waaw bi pono yi commencé tàkk. waaw ci dëkk bi ndax coupure électricité ñun ñoo ne ndaw ñooñu. pono bi ngeen di taal mhm. baaxul pour seen wér-gu-yaram mhm. pono bi ngeen di taal baaxul pour environnement bi mhm. jël leen énergie boobu ngeen construire ko def ko en organisation ñu jàkkaarloog système bi bi fi nekk ak bi ñëw ak yeneen yi ñëwaat kon donc si je comprends bien Y'en a marre mouvement boo xam ni jàmm ak salaam voilà Orange Money xam nga ko Sonatel orange waaw dama koy orange money banque la orange money waaw compte la bu nga xam ni dañ ko créé mm-hmm. si sa mobile mm-hmm. pour ngay transférer xaalis mm-hmm. di fay say facture di jënd crédit te doo déplacé wu nga ngay ne maanaam fi nga toog daal mën nga fay jënd crédit sax yow jënd crédit waaw di fay say facture waaw mbaa ngay yónnee xaalis te doo déplacé wu ak orange monnaie waaw facture yan nga ci mën a fay mm. Malaw Sénélec waaw Canal Excaf. Baobab. ak Orange Teranga ak carte rapido. carte rapido mooy lan. carte rapido autoroute yi. waaw waaw waaw waaw waaw. waaw waaw waaw autoroute lépp da nga koy fay ci orange mooy gaaw. gaaw rapido. <laughs> lépp dañ lépp da nga koy nekk ci orange money. waaw. te loo ci xamul ba xamul mooy Sénégal. waaw waaw. 130 station totale ñoo ci nekk. waaw. station totale waaw. 130 téeméer ak fanweer. station Total. station Total. waa station Total ak waa Orange Money bokk ndey ak baay pour askan wi. Ah. chauffeur si lay léegi. waaw boo génnee sa oto. waa boo amee compte Orange Money demal ba station Total jënd essence nga fay si sa compte Orange Money. boutique bonjour yi. waaw nga dugg def say achat. jënd lu la neex ànd ak ñaari galon yi. ànd ak ñaari galon yi ah. dugg boutique ah, bonjour mais moom mi. Euh. mais loolu yëpp mën nga koo def ci Orange Money. ci eh, ko ubbil sax moom. moom mi dinañ ko ubbil compte na leer booy mooy transférer. waaw payer. waaw acheter. avec votre mobile. moom. jërëjëf Orange Money kontaan naa Ndiaye. rab bii muy liggéey. waaw. moom dafa am xeetu rab bu muy rab. waaw underground ngay rab ah, yow. kii deful underground de. man déedéet man damay man damay. da ngay hardcore hardcore mooy la man mooy ñooñu di wax ba seen dënn yi rës. ñooñu waa hardcore. man dëggantaan waa maa ngi ñëw. man dëggantaan moom mi ngi bay ci askan wi. askan woowu. mi koy développé. parce que dégg naa ni tabax na ab centre bu rëy ca Géejawaay yàpp ca ay gone di leen jàngal hip hop. bon yow yaa jàngalaat hip hop yow. waaw am na ay élèves. ñun ñoo. dañu ubbi dañu ubbi benn centre bu tudd ah. Géejawaay hip hop ci foyer waa Xinaan. yaa ko tabax foyer ba. Ah, ñun suñu association. suñu suñu association moo ko tabax. yéen ko tabax seen xaalis ñaata millions. ngeen ñoo ko tabax Eiffage moo ci tabax lu tollook ay 40 euh, millions. Eiffage Sénégal ñi ngeen di wax rapido ñu defal dans le cadre de la responsabilité sociale tabaxal jagleel leen ko ñoo ko tabax xaalis boobu yëpp ñoo ko ci def mairie bi nag moo ñu jox espace bi très mairie bi directeur foyer bi Oumar Niass ñu ngi koy gërëm bu baax a baax centre bi pour exclusivement war nañ démarrer le 17. waaw avec ministère de la formation professionnelle et de l' artisanat. Mhm. waaw war nañ tàmbale une forme benn formation wu trois mois. pour pour hip hop. donc ñi inscrire wu ji hip hop yëpp war nañ mën a ñëw foofu. Mhm. pour ñi nga xamante ne ci fecc lañ inscrire ñi <laughs> inscrire ci jàng composition musique. ñi inscrire. ci wàllu graffiti. Mhm. ñi inscrir ci wàllu écriture. Mhm. ñi inscrir ci wàllu leneen ak leneen. waaw moom dafa ay pàcc daal. parce que xam nga lu tax ma ko koy laaj. Uh-huh. ñoom dafa am ñoo xam ni ñoom ci rappeurs yi. Mhm. naa tudd tur. ku mel ni Fata day am benn xeetu rap bu muy rap moom di ci boole tamaaki sabar. kii tamit am na façon. ñenn ñi nii. boobu booy boobu di def. <laughs> dafa tooy. waaw waaw. bokkul booy bi daal rabul. day taasu. waaw waaw waaw. te boobu mi ngi commencé laaw. Mhm. waaw moom mi dafa am bosam moom bu particulier moom mi. Mhm. man dama leen di suivre. waaw yaa leen di xool alaaji. parce que li nit ñi di am na maire yoo xam ne xanaa xamoo rap rek lañuy ñuy déglu. ah. kàddu yi ñuy bàyyi ci biir la ñuy del déglu yi ñuy wax. waaw wax ja. mais ca mais ca géejawaay jooju am na loolu neex lu fa am de. waaw waaw Alioune Sall. waaw léegi rap ja yooyu muy ñuy contesté lan la. non rap. rap li mu war a parce que en fait ay. def nga taasu am nga tey am na tey. ci ay comédien yu ne li sa neex di def. waaw dafa yàq mm-hmm. parce que ay sax ñëpp. ay la. waaw mm-hmm. ay style la. am na ñu naan waaw sa neex li muy wax de da tem mu boole ci ay saaga. waaw. man j'apprécie beaucoup. parce que pour man wax ni mu mel lañ ko war a waxee. dégg nga loolu. ah man ci samay way tamit. waaw noonu laa koy déggee bu fekkee li nit ñi di dund la ñu bëgg a tegaat. Mhm. nañ ko na ko nañ ko wax ni ko nit ñi di dundee pour nit ñi mën ci jot ni mu gën a yombe parce que loolu mooy dëgg mais def ko de manière très artistique. donc Fata yaakaar na ni. ci li mu yaakaar ak li ma koy dégg ci ay interview muy wax ak waxtaan yi ma waxtaan ak moom nee na. gis-gisam tey ci rab pour rab bi mën a jaay sur le plan international. foofu mooy foog mu am tamaaki sabar. waaw liñ ci waxtaan man ak moom bi ñu dajee bersi nee naa ko yaa ngi pervertir yaa ngi yaa ngi soppi hip hop bi yaa ngi koy soppi mu ngi demee neneen. ça veut dire parce que hip hop aussi. dafa am nuñ ko war a déggee. ay dafa am tempo bi muy demee. bu fekkee sabar bi dominé na hip bi pervertir nga hip bi def nga ko leneen. Mhm. mais euh, en réalité tout dépend ñan la ñu destiné son bi. public bi mooy hmm. recevoir son. c'est ça c'est ça donc euh, public bi moo war a apprécier. moi je pense que ñun man. suma xalaat rek laa ci wax te loolu suma xalaat la man ak moom ñu waxtaan si. comme moom ni muy amee ay appréciation ci sama liggéey. mais ñoom daal si ñoom ñëpp amoo ci kenn problème. Euh, non non non aw ma aw ma problème ak. Euh, ak kenn par rapport ak yes. Malal xam nga way ba def ne waxuñu ko dëkk ci dëkk bi. kuy defar dëkk bi la ñu wax. Hmm. te yow gis nañ ne Aliou Sall sonal nga ko géejawaay. Aliou Sall euh, frère président de la République waaw. Malal lu xew sa diggante ak Aliou Sall. mooy frère Macky Sall. Macky Sall te Géejawaay. parce que dañu nekk ci benn xeex. waaw léeg-léeg nag nit ñi juum yaakaar ni damay jëfandikoo ji hip hop mooy li ñu fa tabax. Géejawaay pour xeex benn xeex. waaw dañuy fàtte ni que balaa ji hip hop dama bokk group bu tudd Bataillon Blindé. ñu am nu ñuy doxe waaw ma bokk benn mouvement bu ñëpp ràññee ci wàllu taxawal askan wi. waaw donc. wu Aliou Sall voté wul waaye ci présidentielle yi. wu fa si législative yi. waaw dëkku fa du fa fay impo ba pare bëgg fa nekk maire donc loi tere wu ko ko. waaw. Mhm. mais. mais quoi. ci loi tere wu ko. ko yow am na lu la loi. Hmm, di la may. mais moral ak respecté askan wi dëkk Géejawaay mm-hmm. man de Youssou Ndour ba mu demee ca Colobane dañ ne ko du fi amee waaw man mm-hmm. fu ma dul fay impôt dafa mel ni ma jóg rek du fi amee mm-hmm. ne ko lan Medina ngay dem waxuñu ko sax Medina dañ ko Colobane gi yëpp yooyu muy Youssou Ndour ak ku mu munti doon waaw du yoon ce n'est pas respecter les habitants mm. cest à nit Youssou Ndour Medina nga dëkk waaw demal nekki maire Medina très boo dëkkee Fatick demal nekk maire Fatick. bàyyi Fatick parce que c' est très simple dañuy expliquer paramètres yi tax gars yi di xëccoo. parce que Guédiawaye c' une très grande banlieue. bu nekk di jóg. bu nekk di màgg mu am ay potentialité ndax am na ñu mën a doxol loolu ca Guédiawaye. non pour moi c' est pas li li am importance. mooy li ñuy wax ci Y'en a li ñuy tàggat askan wi mooy ñu am fulla ak fayda. man. koo munti nekk parti boo munti nekk. ça ne m'intéresse pas. mais na nga dëkk biir géejawaay léegi nag ni ñuy doxale mairie géejawaay loolu askan wi moo war a exigeant bu askan wi banqué ay loxoom ne noo leen ma jiitee baax na. Hmm. ku ñu fi indi tamit. nu ko neex lay gérer dëkk bi sa problème daal ak Aliou Sall mooy dëkkul géejawaay. warul nekk maire géejawaay c'est très léegi nag léegi nag mais c'est très dëkku fa. dëkku fa am na malal yow mën ngaa dëkk ah, ci opposé rek yow mën ngaa ah, dëkk ci histoire ñëw fi géejawaay nga dëkk géejawaay laa dëkk ka futan ke wana mi man Sinthiou Bamambé mooy mooy suma village mooy suma village waaw mooy suma village ma juddoo Saint-Louis waaw euh, am fa ñetti at waaw bi ma amee ñetti at waaw sam papa policier la woon waaw ñu affecté ko géejawaay ñu toxal ñu géejawaay ñu jël mu jël retraite ñu ñëw géejawaay waaw bi ñu ñëwee géejawaay boob ba léegi géejawaay laa nekk yow ñaata at nga gimmee géejawaay ah, géejawaay ñun ñu ngi fa dëkk depuis 77 ok oh géejawaay nga dama ni yéen waaw yow fa nga bokk mais Aliou Sall am na fa kër géejawaay sant ak léegi ca ma mu metti ma Aliou Sall am na fa kër wala am kër sën bu fekk mais dégg naa mu ngi fay tabax kër mais quand tu une maison pour la circonstance <laughs> non booy non non non non non. c'est que malal ci boppam. nelaw ci boppam moo alaw la ni ni. xam nga tabax kër nga ni yoo di daree noppi. nit xam nga xam nga tabax kër la malal daree man lenn rek lenn rek laa am lu may wax. waaw mon devoir. waaw je suis en train de le faire et je vais le faire jusqu'au bout. wutuma ci ndab. li ma ciy wut mooy. waaw taxaw askan wi suba. ñu xam ni. waaw bi ñu soxlaa agressé Guédiawaye dans sa dignité. taxawoon nga ca man taxaw na. li may taxaw di wax mooy suma ñoom yaay suma ñoom papa. Mm. ba ci am na ay imaam. waaw yu nekk géejawaay yu Aliou Sall naxe raaxaat jàkka bi. pentiiraat <laughs> daajaat buntu bi imaam Aliou Sall. non waxuma imaam Aliou Sall de. am na ay ne am na ay imaam. yu nekk géejawaay yu ñu naxe loolu. te yàlla dafa wax ci alquran alfaridatul kifaaye. Eh, déglu ko. maanaam l'obligation sociale dafa am faridatul insaniya moom mooy l'obligation individuelle jàpp julli woor joxe asaka dem màkka mais dafa am faridatul kifaiya ma koy fàttali sama ñoom imam yooyu ne leen obligation sociale bu askan wi bu askan wi soxla te même bu ko fekkee daf ko joxe en forme de zakat l'islam dafa ne zakat ça doit être désintéressé ah. <laughs> loolu la l'islam jàngale booy sarax taalibe. Hmm. waaw doo bu baax booy sarax taalibe nii la ñuy def ba ko rek. waaw damay dina ñëw léegi ci man. damay bañ waaye. léegi mu ñëw waa ko ñoom nii la ñuy def. fayil kii xam xam <laughs> dafa war a désintéressé. donc man li ma bëgg wax ak suum ak waa Géejawaay. yow daal da nga gis ni moom dafa nekk di jënd waa Géejawaay fi mu toll. xam nga en réalité. kum ci munti doon même bu fekkee. tey am na ku dëkk APR am na ku nekk beneen parti. waaw budul APR. Hmm. nekk PDS wala feneen dëkk feneen. ce n'est pas la personne de Aliou Sall ñu parachuter la fa pour nga soxla mairie Guédiawaye je suis contre ton mhm. com je suis contre ta candidature. Hmm. et liñ ciy def mooy askan wi léegi nag gis nañ ni que c'est très dommage nga dajale les populations comme ça se passe d'habitude. joxe tissu. le tissu acheté avec le contribuable sénégalais. mooy xaalis bi askan wi moomal boppam. kan moo ko def mais jëndal nañ leen ay tissu même samay. sœur la wax ni du xaalis dama ah. ne la am naa ay sœur. dama am naa ay sœur ak ay frères moom xaalis dama ne am naa ay sœur ak ay am naa ay sœur ak ay frères. waaw yi nga xamante ne. waaw. wodd nañ ci tissu yooyu dem fekki Aliou Sall ci meeting. waaye yow yaa ngi tooñ. xam nga lu tooñ. parce que wóoru la ne xaalis boobu Aliou Sall ko je veux dire nga ne l'argent du contribuable je te donne un exemple il y a des fonds politiques ku ci nekk tu cherches les fonds politiques c'est l'argent des Sénégalais <laughs> euh, euh, fonds politique existe wul fonds politique je pense que dañ ko war a jël ah. renforcer les projets pour l'emploi des jeunes renforcer la sécurité l'éclairage public au niveau des banlieues waaw loolu lañ soxla kii yow suñu waxtaan ak yow naan gu yokk mar la. du doy. parce que. waaye nag fi may tàmbalee ngeen bala ngaa dem. mais est-ce que bëgg ngaa ñëwaat fii ci kër gi. ba ñu ñëwaat. man kay boo leen woowee rek ma. da ngay ñëw bu fekkee waxtaan bu am solo bu mel nii. dama lay laaj yow ba kañ nga a opposé yow. <laughs> non ñun duñu. ama duñu xam nga boo nee opposant dafa mel ni. non non nga baal du duñu laaj opposant ba kañ nga nar lànk. waaw dañuy dañuy lànk tànk. <laughs> tànk tànk fen mu ngi am ci dëkk. jéeg nga. waaw tànk nit ñi ñu ngi fen. ba sama gan bi la. man damay kontaan waaw kontaan naa si yow. ñun dañuy tëj hmm. kontaan lii. ma lay présenté lii ma sol nag. Hmm. maas bu sëñ Fallou fa jaar. maas ku man a ñaw la. nekk Pikine Rue <laughs> 10. man da xam nga li ma sol ko ma ko may. ku ci bëgg na ma woo téléphone. sama papa jabar sama goro. leer na nañ moo la ko may kon leer na nañ man xam nga la ki dama bëgg ngeen jàppale ko sama xarit bi kon ko maas moom maas moom xam nga ci ñen laay wax ci orange money waaw dama pour noppal sa bopp ak njaboot jéeg yëpp baro am nga orange money saa am nga waaw am nga am naa cent cinquante pour lañ ma jox démb noppal njaboot la tudd lu mu am ci ay kii nag xanaa boo jëndee essence sax am nga bonus crédit waaw dama ko bëgg a laaj dernière laaj benn dañ waaw dama koy réew mi mi ngi dox réew mi dee ay eh, milliards yi ñëw na Sénégal émergence. a ngi wax ay milliards yuy ñëw. waaw milliards yooyu wax ni ñëw na. Ah? wax bu fekkee dañ ah. fi bu fekkee dañ fi dajale des milliers de sénégalais fayal leen billet avion ci xaalisu sénégalais yi. yóbbu leen. utiliser ko commune une occasion pour meeting. dans les banlieues en France à Paris un peu partout. ça c'est pas correct. c'est pas de la rupture. la rupture mooy. Hmm. Ah, li nga li fi newoon ci yàqu-yàqu ñu jëm ko éviter au grand maximum loolu moom mooy dëgg askan buñ koy jiite dañ leen di jiite ci defar jikko yi dañ leen di jiite ci wàññi yàqu-yàqu yi gaspillage dañu nekk ci benn dëkk bi nga xamante ne li ñuy gaspiller ci alal di ko def ci ay kecew kecew dafa bëri ay nit yuy jóge ci ay parti politique ah di transhumé. transhumé mel ni mel ne xar buy wuti ñax fenn. eh boy oh il faut que ça. oh arrête calme-toi. non il faut que. non da ngaa war a calme. waa <laughs> Cheikh non eh oh. calme ala doo ñëw ci ñaareel. a calme. Ah, bi doo ñëw ci ñaareel bi. non am na ñaareel. ah dama loolu xam nga c'est pas xam nga xam nga ñaareel. aada kontaan nañu ma ñaareel ah, ñaareel aada. terewu ko cosaan aawo bi ñoo yem. ñoom ñaar ñëpp laa nopp caay waaye di nga ma caay daqaar rek toj kaani pàccal li ngom ni ñagas day waxoon na. non dafa xaw xaw a góor jigéen na nag. Ah, ah, ah, ñagas nee moom loolu yëpp da koy def. waaw waaw mais xam nga expression bi boo dajalee mot bi. waaw toj kaani. pàccal li ngom mac daqaar pàccal li ngom dafa xaw a góor. mais ñagas nee loolu yëpp da koy def moom. dinañ dinañ. waxtaan ak moom pour mu bako lépp lu lekk laaj. bu fekkee suñu gémmiñ gémmiñ lewat na dinañ wut limon wala dinañ. <laughs> wala baax wala wala Dakar ah, ah, loolu ma wax sax lànk na ci day lànk na kontaan mu ñëwaat no day ñëwaat ndax dafay waajal loo bëgg ci kër gi nee day bëgg a yóbbu Bercy bu Youssou Ndour bi waaw def day tëggit Bercy rap nee ñu ngi ko def cabaret sauvage waaw foofu incha allah cabaret sauvage benn benn espace la bu nekk Paris dans le 19e Youssou Ndour mu ñu siy jàppale. ñu ngi ci war a liggéeyandoo ak ministère de la culture. ak partenaires yi xaritu Youssou Ndour waaw ñu ngi si suñu grand la waaw suñu grand la. jaa ngeen Amérique loo fa nag ñu ngi fa woon euh, di jàngale ji. njëriñal hip hop Sénégal. dégg nga ko dem ba euh, di ko def euh, Ponoma. am xaalis doo nga tax mu bañ 25 millions yi bu fekkoon nga xoox li ko jël <laughs> waaw bu ñëw ayyukum eh, da nga fay bàyyi tulaasim dinañ ko dégg bu soobee yàlla ah, waaw mais xaañ ma si tuuti rek dégg nga xaañ wala xaañee nga dem hôpital non non xaañ ko ko rek xaañ ko ko rek jëm jaayen jëf man seet na man tubay mais man nag sama fan si nga ne sama xarit la moo ma ni woon yàlla du lakk kenn ñëppay dem àjjana ma koy discuter ak moom cinq heures de temps mu lànk ni ma ñëppay dugg àjjana waaw ñëpp mooy mos a lànk waaw kontaan naa <laughs>